salaamaaleykum mbokki xariñu ñu seetaan suñu émission homme politique ci Thiès Info ak Thiès TV tey na dajal kenn rek ci ndaw yi nga xam ne dañoo fare ci parti bu APR di euh, Issa Fall dëkk tamit euh, ci biir commune bu Thiès Ouest dañ koy bàyyi rek mu def présentation ak mbokki xarit seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV Issa salaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina Omar maa ngi lay nuyu di nuyu équipe bu Thiès Info bi yëpp di jaaral nuyoo bi si Latir Seye bi nga xam ne moom mooy kilifa gi. di len féliciter et encourager aussi ci liggéey bu rafet bi nga xam yeen koy def ci biir Thiès mais aussi au delà man ma ngi tuddu Issa Fall bokku si APR dëkk Thiès Ouest di liggéey ngir gëna renforcer le président Macky Sall. alors Issa kañ nga dugg ci APR. waaw Seydina Omar man ma ngi dugg APR le 2 février 2009 ci jeunesse ouverte à Macky Sall bi nga xam mo moo au niveau de l'université Cheikh Anta Diop si laa dugg APR bala lolit ma ngi jall wa senegal gi yeb ak umma islamit bi kilifa diine yi nga xamne ne nañ fi di ñaan yalla yok seen leer ta tax ñu seenu barke di ñaanal tamit khalif yi nga xamne mo fi nek yalla katan nañ leen degeural leen may leen wér-gi-yaram go xamne ne agale àggale bi nga xamne mom lañ sumbu isa tay bu ñuy wax ci li nga xamne rek wax nga ko 2000 le nga def 10 ans ci parti bu APR parce que février 2009 la won ba ñu ngi ci février 2018 euh, alors ci ban instance nga doon yëngoo ci APR. waaw Seydina Omar tout au début maa ngi doon yëngu comme ni ma la ko waxee sànq si jeunesse ouverte à Macky Sall bi nga xam ne moo newoon université Cheikh Anta Diop qui est devenu l'actuel maire c'est-à-dire le mouvement élèves républicain. républicain. avec mes frères Bara Ndiaye ñoom 13 et cetera ñoom Lamine Gom actuellement it maa ngi yëngu si biir commune bi ba ma jàngee ba pare damaa ñibbi si Thiès di yëngu si biir commune bi di à ak le professeur Demba c'est l'actuel est du euh, du ministre des forces armées di ak depuis Bobo, ñu ànd ngir sukkali que nous gox tamit nous avons ci éthique ak morale alors très bien tey li nga xamante rek moom mooy bëri na ay sorties médiatiques yi nga xamante ne ñu fare ci parti APR rawatina ci bànqaas bi di COSER euh, ñu ngi génn di def ay déclaration di wax ci situation politique bi ñu dañu gis léthargie bi nga xam ne rek euh, dina leen yóbbee tamit ngeen amaat ay jafe-jafe ci présidentielle yi ni jëm li ni mel lan nga ci àddu. waaw Seydina Omar on est en politique. loolu mënut a ñàkk kenn ku nekk am nga droit génn comme ni ko gars yi jàppee mais nag dañuy fàttali ne politique dafa am discipline de parti qui a une organisation mais juste pour préciser que au niveau de Thiès commune il n'y a pas de Cogère. il faut que nous nous baissions Thiès commune. il n'y a pas de Cogère au niveau de Thiès commune il y a une Cogère, c'est-à-dire la convergence des jeunesses républicaines au niveau du département dirigée par mon frère M. Diouf au niveau de la commune il y a une instance qui est la coordination des jeunes de Beno Bok Yakar, dirigée par Lamine qui a été désignée par le coordinateur départemental euh, docteur Augustin Au niveau des trois communes, il y a aussi des coordinations de Benno Bokoyakar. Comme par exemple à Thiès Nord, il y a Magui qui représente les jeunes de Benno Bokoyakar. À Thiès Ouest, il y a Touré qui représente les jeunes de Benno Bokoyakar. À Thiès Ouest, c'est moi, Fall qui représente la jeunesse de Benno Bokoyakar. Mais pour préciser le que, je ne parle pas au nom de la jeunesse de Benno Bokoyakar, car je n'ai été mandaté par aucun jeune. Je ne parle pas aussi au nom d'aucun leader. Je parle selon mon opinion en tant que militant de APR. mais ah. Cogère n'existe pas au niveau de Thiès commune. Quand nous engagé. alors très bien mais nous wax présentation nous devons nous Assane euh, toujours les jeunesses républicaines dañuy nous ñu nous ci euh, de le dire mais nous ñu si bari nawlawuma leen parce que du ma jàpp ne APR laa nekk dem ay Malick Gakou ay Abdou Mbaye di ma recevoir pour jox ma ay meet te ñooñu ñëpp dañ leen a étiqueté ay dóorkat te effectivement loolu am mu nekk affaire boo xam très sincèrement c'est regrettable parce que je pense que un jeune li ko a caractériser sa dignité son engouement sa conviction à faire quelque chose de bien pour sa cité à faire quelque chose de bien pour le Sénégal mais malheureusement les valeurs que nous le président de la République inculqué je ne non reflété de par leur comportement et c'est désolant de le dire mais ils ne font partie d'aucune instance si jeunesse a perdu effectivement si ne ñu wax mais quel mandat est nous ñom li ñuy wax ñom rek la considérer très sincèrement je pense que crédible na parce que eux-mêmes ils ne sont pas crédibles ils n'ont aucune notoriété ni de crédibilité dans le parti et même aussi dans la ville alors ils ont fait des déclarations yoo xamante ne rek euh, di wax ni commune bi euh, madame. Amné la léthargie parce que da ngeen am jafe-jafe pour am coordina coordinateur pour xam ne moom mooy leen di jiite ci APR ba tax ñu taamu euh, Abdou Mbow turam a ngi génn Siré tamit turam ngi génn pour ñi nga ne war nañu mën a coordonner li nga xam commune bu Thiès maanaam la ville de Thiès li ni mel lan moo ci s'en xalaat yéen. waaw Seydina Omar le militant lambda de l'APR. pour coordonner coordonner ne coule xam lu jafe la.

en 2019 Cette stratégie nous du fidélisé lu dul xool nu ñuy fidéliser ak en termes de rectorat mais aussi les zones à problème yi nga au niveau de Thiès te tax ñu amoon benn écart huit entre nous et la gauche Nous xool comblé. ñu koy combler jéem a fàttu loolu te lépp nag nous donc ko mën a waral moom ñu la synergie des forces et des cœurs mais waxi coordonnateur communal je pense que nekkul loo xam ne urgence la loo xam nécessité pour le moment et le besoin ne se fait pas sentir parce que vous savez en 2012 on est allé. mais Issa parce que bu dee wax nañu léthargie également le besoin boo xoolee tey li nga xam ne coordination mais équipe boo gis dafa am ku ko jiite. tey bu dee APR yéen bu ngeen fi nekkee y avait euh, l'ex ministre Thierno Alassane Sall moo doon coordonné commune bi euh, bi mu demee am ñeneen ñu fi nekk naam sax amna ño ñoo xamante ne daan nañ yëngu en tant que adjoint muy ñom du top Amadou Dia ak ñeneen ak ñeneen euh, mais li ñu mel tay bu ñu xoolee li nga xamante rek mom moy tay li ñuy wax ni Siré

n'est pas à l'ordre du jour parce que boo xoolee Thierno Alassane Sall bi mu fi nekkee ñu nommé ko coordonnateur communal amul lu mu fi yokk amul lu mu fi or dafa am lu mu fi wàññi ndax bi mu fi jugee boo xoolee élection yi passé am gab boo xam ni jugeem peut-être moo ko fi indi même bu fekkee parfois dina métti ñu wax ko mais tey li ñu war a def moom mooy trouver des stratégies pour dem xëccaat loolu parce que la jam amoon ba amoon par exemple électorat boobu noonu le président Macky Sall moo ko mais moment bii du moment wu coordonnateur communal il faut que ñu xam 2012 bi ñuy dem élection gestion collégiale lañ démé won ñu ñëw 2014 gestion collégiale lañ démé ñu ñëw législative gestion collégiale lañ et pourtant on note une nette progression mais de manière exponentielle de l'électorat de la paire au niveau de Thiès. Coordinateur coordonnateur communal mais la commune de Thiès n'est pas exclue du département de Thiès le ministre Augustin que je remercie de passage et je félicite. Parce que quoi qu'on puisse dire, de par son humilité, sa capacité de réflexion, son management participatif qu'il est en train de dresser au niveau de Thiès je pense que l'olmo les 12 communes yi nga adhéré à la cause du président mais aussi il y a sa main invisible qui se sente au niveau de Thiès. dans la commune dans la commune. la main invisible d'Augustin Thine. d'Augustin de par ses réactions de par ses conseils de par ses orientations et de par sa conviction que le président Macky Sall dafa war amdam am ndax defna lutax mu a alors isa su ko sama da nga ni chaque responsable fi mu nekk dafa wara pour euh, président. absolument parce que tous les responsables qui sont ici sont des ambassadeurs du président au niveau des populations thiessoises et tay ku si am ndombal tank bay grâce au président Macky Sall kon tay président Macky Sall mo soxla en 2019 c'est une élection présidentielle te képp ñim ñoom ñi fi am ndombal tànk yépp ku nekk di fëgg dën naan mën naa nekk nii mën naa nekk fii tey président bu fi nekkatul ndombal tànk yooyu doot fi ne kon li leen war mooy rendre à César ce qui revient à César c'est-à-dire jox le président Macky Sall sa rétribution mooy ñu falaat ko 2019 que chaque responsable se sente et se considère comme étant un coordinateur communal bu ñu ko defee la solution dina ñëw mais ce qu'il y a aujourd'hui c'est de trouver des stratégies pour gagner Thiès alors les gens d'autres disent que y a des lobbies derrière li nga xamné rek moy kàddu yu jog ni Thiès dafa mel ni dañ ko nara a parce que ñu ngi dégg ay kangam yu bari ci biir appareil étatique bi di jog pour ñëw Thiès nan dañu ñëw pour jàppale président de la république li ñu mel yeen en tant que apériste lan ngeen ci xalat waaw fofu jar ñuy préciser parce que mouvement parfois mouvement yi ñu né amuñu solo am nan solo mais mouvement bi kenn nit ko ko jité sax électoral mais ce qu'il y a mooy. Euh, ni ma ko waxee sànq tey ñun ñep bu féké tapanté nañ xol yi def la synergie des forces kay ñëw di yakal président ak ka ko dul yaakaar mën nañ ko baña sentir mais il faut ñu xamné le seul objectif bi ñu am te ñun ñep ñu bokk moy le président Macky Sall pour que développement économique bi nga xamné ne au niveau du Sénégal plus particulièrement au niveau de Thiès ça se sent le président mun ko agalé après 2019. mais y isa ñu bëri ñu wax ni Thiès moom <coughs> bu ñu xoolee rek euh, Thiès. li nga xam ne moom mooy régime Macky Sall cees gisu ci boppam. waaw Seydina Omar kum neex gis asamaan ne gisuma dara kum neex gis weer ne gisuma dara parce que tamit naa naafeq lay doon ba yomal xiyam tey Thiès bu ne gisuñu dara loolu ay caaxaan la. sama docteur Pape Amadou Ndiaye daan na ko wax ci campagne yi passé naan waa Mbour 3 daan leen tooñe loolu suba leen daan sangu wala ñu sangu ngoon gi kese tey boo xoolee château d'eau bi fa indi avec une capacité de 2000 mètres cubes gëj naa manqué Thiès sauf bu fekkee am na euh, euh, réfection yu ñu war def électricité bi au niveau de Thiès ça se sent gëj fait coupé la NSTS bi nga xam ne moom moo taxoon Thiès waaye doon gën a yëngu économiquement. président Macky Sall bi mu ñëwee ba muy dugg Thiès foofu la njëkk a am ambition wu defaraat ko gars nous savons ñu c'est une zone industrielle kon la NSS la NSS est une entreprise sine qua non pour sa pour le développement de Thiès et aussi la transformation... euh, la euh, euh, defaraat raay bi defaraat raay bi ligne Dakar Bamako bi mu nekk loo c'est une réalité nekkatul loo xam ne dañuy toog di ko wax wala di mais loo xam ne lu gis mais je voudrais juste préciser que jeunes yooyu doon génn man je pense que surtout Ibou Diouf bi nga xamné gennon na bon j'ai le droit de l'indexer parce que dañ né Abdou Mbow mo top ci ginaawam et tout mais de sûr mom moko défal bopam Abdou je pense que dépassé na yoy parce que vous faites fekkee position bi am ce président. manam cadre yi mu yëkëti mom moko waxal bopam cadre yi mu yëkëti ak ñi koy proposé yëpp naan Abdou Mbow mo wara don coordinateur communal depuis 2012 Abdou est là il n'a demandé il n'a jamais demandé d'être un coordonnateur communal je n'ai pas été mandaté par Abdou mais il faut nous wax ko. Abdou, il fait partie euh, de, des, des, cadres de la paire. Il fait partie du comité exécutif de la paire, du directoire du parti. Il se voit avec le président. kooku kon lan lay xëccu waxi coordonnateur ñooñu nous ñëw di jeunes parce que xaalis la ñuy wut ay meet yoo ne nii mënu leen jariñ dara mais il y a des la ce qui est déplorable très sincèrement c'est déplorable mais ce qu'il y a qu'il kilifa yooyu nan am xelum ak dalum xam ne ñii juguñu pour defar ñoom ñu jéem a ànd tàppante teen xool parce que la synergie de leur force moo ñuy may force ñun jeunesse bi ñu mën a am dal ak euh, efficacité wu demaat terrain bi mën a récupérer li nga xam ne moom lañ soxla muy électorat bi jébal ko le président Macky Sall. alors euh, lan ngay àddu tamit ci Siré en tant que directeur général bu poste ñu bëri ñu ngi wax taxawaayam ci li nga xam ne mooy ndaw ñi euh, ci wàllu emploi ak yi ni mel yow en tant que apériste averti et aguerri lan nga ciy tontu. waaw Siré Dia maa ngi koy nuyu di ko féliciter si nga xam emploi yi nga xam ne jox na ko jeunesse Thiès parce que quelque part aussi quoi qu'on puisse dire il a été nommé directeur général de la poste mu nekk luñ ko yéene di ñaan yàlla mu saxal ko fa mais jëlu ko moom kese jël na ay ndawu Thiès mu jox leen ko te ndawu Thiès benn boo si jël rek moo ngay fayeeku par weer fayeeku googu moo ngi say dimbali seen waa kër ñooñu électorat boo xam ne bu ñuy la kon sympathie bi nga xam ne Idriss Seck defoon na ko ba am ko si Thiès waay mom Siré def nako à travers emploi yi nga xam moko mo ko moo koy joxe mais nak du ak ngouram il faut ñuy préciser C'est le président Macky Sall qui est derrière tout ça C'est le président Macky Sall parce que fam nek mom moko fa tek benen bi moy yeneen leader yi tamit kenn ku ci nek Walla ba nga nek yaangi def li nga mën sa kéemtalaay katan pour ties avancer sur le plan économique sur le plan social parce que ñeneen ñi ñoo ngi financé ay femmes ñeneen ñi ñoo ngi suqali yenn koñi di def ay ay ay ay ay ay ay ay assainissement ñeneen ñi ñoo ngi dem si jàkka yeeg église yi

waaw euh, Seydina Omar parfois quand je sors dans la presse je ne préfère pas parler sur la personne de Demba Diouf parce que au-delà de mon leader que je respecte beaucoup c'est mon père idéologique li muy def Mbour 1 li muy def zone ouest gis nañ ko mais l'état de ma savoir de wax la seule chose bi nga xam ne c'est le succès du parti au niveau de Thiès et au niveau national la seule chose bi nga xam ne c'est ko soxal moom président Macky parce que Sénégal moo tax wax ci ay euh, presse wala ay débat duma ko bëgg soulever et aussi très sincèrement

ko ci weer yi ñu waaw euh, Seydina Omar wax si li may wax si Thierno Sall je pense que du bari parce que roy mënut a niróog pire c' est le président Macky Sall qui a créé la personne de Thierno Alassane Sall au niveau de Thiès Thiès kenn xamu ko woon kon tey bu demee ba am benn taxawaay bi waa Thiès yi xam ko mun day teg ay kuréel c' est grâce au président Macky Sall. certes nag occupé woon na ay postes stratégiques dans le gouvernement avant bu fi jóge mais euh, workat workat rek nga mën a doon et je pense que Workat ay mbiram du jub kon mom li nga xam mo ngoy tek diko def si bannière APR la ko jàngee nekkul loo ne dinañ jaaxal bu ñun ñu ci jéem désorganiser wala quelque chose du genre sur la personne de Idriss Seck Idi Workat la Idi jaam la Idi sàcc la ñetti mbir la la wax Workat la parce que wor mom mo taxone mu baye président Ablaye Wade wor mo tax tay ay jeune comme Thierno Bocoum bàyyi wor moom moo tax ku melni le professeur Papis le docteur Papis Ndoye bayiko ko wor moo tax tey ñu melni ay conseils municipaux yu nekkoon AP euh, réew mi ñëw bàyyi ko la parce que les fonds de Taïwan ba légui waxagu si. mais le fonds de Taïwan ma défini les 7 milliards ñi wax entre Macky Sall et qui loolu coow loolu dafa yatou de euh, Issa. Euh, fofu duma ma c'est juste pour éclairer juste li tax la etc. les chantiers de Thiès je pense que ay chantiers yu daté 2004 ba légui warna mëna paré mais ba les chantiers de Thiès la wax toutes les réalisations qui ont été constatées au niveau de Thiès ont été faites euh, lors du régime du président Macky Sall. donc la personne de Idriss Seck n'est koo xam ne nii la mais il est dans son rôle d'opposant mais tamit de beau-parleur il dit c'est un beau parleur c'est un fainéant jamono ji mangi deg ñu naan mo ngi def ay tournée ak yooyu jamono ji tournée yom na Seydina Omar Amul tax tournée yom. ba mi metti le président Macky Sall mo dugg si dëkk bi di dal ci ay xeer di dal ci ay gannuuf di dem ci ay dëkk yu lëndëm di fanaan ak nit ñooñu di xam jafe-jafe yu ñuy dund tey Idrissa Seck bu ko neexee jug parce que de 2012 à 2014 de à 2016 le président Macky Sall a construit 1295 km de route yoo xam ne jusqu'au fin fond des périphéries du Sénégal boo fa demee si route goudron ngay aw kon voyage yomb na foofu ngay demit boo fa demee dañ fa fekk courant avec l'électrification rurale 1192 villages ont été électrifiés durant 4 ans seulement kon tey bu ko neexee mën a day jug wër mais nag wër bu demee ba àgg lan la fay wax foo xam bo fa demé di fa fek courant fek fa eau potable fek fa route yu goudronné bo ñëwee ñu né ko ku def ñu né le président Macky Sall leneen loo fa wax da ngay wayé di te très sincèrement Idrissa Seck du ku ñuy nawlo du ku mëna yor askan bi parce que ku mënta yor commune mëno yor conseil départemental ce réew mi parti réew mi nga xamné ne yaa ngi ko doon gérer ko yor ba légui mu devenir néeg bi kooku je pense que bo taxé di laaj réew mi wa kees gi nga njëkk dëkk ñoo lay njëkk a te élection yi passé wane na ko ak score bi nga xam ne rawee ko au niveau du département ak bi nga xam au niveau de la commune te mu nekk que xam ne day continuer mhm. alors euh, kon Issa euh, li nga xam ne rek moom mooy euh, seen PSE ak PUDC programme minimal. ni mel kon yéen ñi nga xam ne léeg ngeen dem ci bi est-ce que vous ngeen di jàpp ni lu am la. absolument vous savez que le PSE c'est un grand ensemble économique dans lequel il y a des sous-ensembles comme le PUDC. Mhm. PUDC objectif bi suqali mbay mi si la bocon, électrification rurale c'est la bokon. hydraulique bi si la bocon. tey boo demee si àll bi ding fa fekk ndox mu sell boo à si àll bi faire fa fekk courant Bo demee si à bi ding fa fekk ay route te il faut nous sachions ces routes là permettent la facilité et la mobilité des personnes qui est un vecteur sine qua non dans le développement d'un pays et le président Macky Sall à très tôt copié cela à miser sur l'Europe autre chose aussi Taï Bodile Puma le programme d'urgence pour la modernisation des axes et euh, frontières et, frontaliers euh, je pense que son objectif majeur c'est de désenclaver les périphéries et 18 444 actions seront faites dans ce programme et ça se sent très sincèrement Vous faites que fait vous vous avez fait président Macky Sall Amna président président très bien kon nga ni li nga vous avez fait... parti bi ni mu 2019 euh, au premier tour. Absolument. Le, président, le bilan du président Macky va le président parce que c'est un bilan extrêmement satisfaisant. Quoi qu'on puisse dire, c'est un bilan extrêmement satisfaisant et à travers le PSE le yëpp nekk na loo xam ne dinañ ko mais encore une fois c'est euh, Omar ñu xam ne mbir mi du ay waxi kese mbir mi du ay jaxase du ay ki jëf la. te président Macky Sall ci loolu la nek alors yan recommandation ngay dox euh, peut-être ndaw ñi ak mag ñi responsable que ce soit euh, du pouvoir comme de l'opposition yan recommandation ngay def. waaw pour opposition bi li leen wax mooy seen rôle la nekk dëkk bu nekk dina am ku nekk au pouvoir nekk am am ay opposant seen rôle la ne mais lépp ñu def ko dans la discipline te lépp lu ñuy defit lu si aw war a aw voie administrative ñu def ko ñu jox leen li nga xam ne mooy seen ak ak yelef parce que on est dans un pays démocratique et le président Macky Sall c' est le président le plus démocrate bu fekkee xam nañ fi may waxee beneen bi mooy concernant mes camarades et frères du parti jeune dama jàpp ne dafa war a un jeune dafa avoir notoriété crédibilité parce que c'est nous qui devons tenir le destin du pays demain donc si démarche moi euh, personnage suba ñu der créer ay entre les leaders wax le président Maxal, Sall leen félicité ñu benen bi ñu bañ kenn jaxase leen te xam ne le seul dénominateur commun bi tax ñun ñëpp ñu nekk fi kenn ku si nekk dine dama bëgg développer Thiès dama bëgg développer Sénégal c'est le président Macky Sall tey moo aye moom moo soxla te on est dans une période pré-campagne kon li ñu war a def mooy changer à des stratégies xool nu ñuy gën a defarwaate nu ñuy gën a dal tàpp xol yi nekk benn di xàccee ndoo di dóorandoo très bien lan moo doon kàddu gu mu gi émission bi jeex na. waaw santaat le président Macky Sall di ko ñaanal suñu borom woyofal yéen bi ba développement bi nga xamné entamé nako au niveau du Sénégal mu mën ko agalé ci deuxième mandat bi nga xamné inshallah rabbi allahu dinañ ko tek ci loxom te Thiès lay démarré bu soobee yalla ñaanal kilifa diiné yi aussi ñaanal kilifa aadé yépp ñaanal sun leader yi di ñaan yalla tamit wàcce jamm Sénégal wàcce jamm ci àdduna bi yépp di sant waa info bu baax a baax baax di sant ñépp voilà mbokk yi xëy na ñu suñu émission homme politique ci Thiès fois que Thiès TV ñu doon dalal Issa Fall bokk ci ndawu APR également nekk kenn ci responsable yi nga xam ne dañu féete fii ci biir euh, commune bu Thiès di leen jox di ci numéro Inshallah.